texte yi nee na carrément foog nga am ko de constitution balaa ngay gis sa sa sa sa kii sa sa client. foog nga am sa lettre de constitution foog nga gaaru sa carte professionnelle. sama collègue yi duñ ma bàyyi ma fen flagrant délit de ma ne flagrant délit mm-hmm. avocat bi bu ñëwee leen ko mu gis ko ndax flagrant délit c'est dans les 48 heures. dëgg la boo ko ne wuti lettre de constitution fu mu koy wuti jee. bu demee fekku fa juge ba mu koy jëli jee. mais bu dee instruction la nag foofu nag war ngaa mën a indi sa sa sa lettre de constitution. ak sa carte professionnelle. am na tam leneen lu ma bëggoon a laaj maître. Mhm. li ma gën a jaaxal man ci ci ci ci mbirum avocat yi man mooy ci mbirum état bi bokk man mooy tey ku ci mel ne Ndeye Gueye dañ koy accuser dara Ndeye Gueye c'est une célébrité nit ñi xam nañ ko en deux jours trois ñu atte ko en deux jours trois ñu taxaw atte ko. nga gis koo xam ne depuis deux ans mu ngi ci biir kaso bi tëdd liñ ko liñ kat liñ ko wax xamuñu ndax moo ko def wala defu ko mais ba tey kenn mënul fexe ba mu taxaw devant le juge loolu aussi naka lay demee maître je crois qu'il y a deux poids deux mesures. loolu nga wax noonu. actuellement def naa ne mooy le problème le plus énorme de la justice sénégalaise ñaari at nga wax semaine dernière défendre naa nit cour d'assises ñu acquitté ko quatre ans et demi lañ ko tëj am na ñu dem ba dix ans. am na fi pendant dix ans ñu teg la ci biir kaso bi xamoo ci loo nekk yeewu suba ñëw jugé la acquitté la ne la defuloo dara demal soon yoon wala yenn saa ñu tëj la cinq ans jugé la mais après bon ñu tëj la quatre ans mhm. nga génn c'est-à-dire que loolu li ko indi je pense ñaari affaire la première affaire bi mooy cabinet d'instruction yi li fa nekk ci dossier dafa bëri dafa bëri. et y te y a de magistrats. pour ñu jël en charge loolu lépp te tamit. <laughs> te tamit. ah nga jël nit ne ne yow yaa tabax lii dugal ko fii ku def li dañ lay dugal fii ñu ne lii la def dugal nañ ko fële nga jël dossier am def ci ay tiroir jàmbatoo ko xooloo ko tëj ko ñetti at ñeenti at atte ko ne ko defoo dara foog naa état Sénégal rek la am amul dédommagement wala am na dédommagement. justement justement ça loolu euh, dañu wax waxu projet. man mii sax dañu projet de loi yu na foofu. des lois moins importantes ont été votées c'est inadmissible que jël nit une heure de prison rek bëri na. bëri na à fortiori nga jël nit jigéen. waaw jigéen góor ak jigéen ñoo ci am mais surtout jigéen comme que mooy thème bi. Mm-hmm. tëj ko un an deux ans trois ans quatre ans cinq ans atte ko tilimal dara bi ba mu tilim. yàq ko ñu ñëw taxaw ne ko alors. defoo dara defuloo dara mu ñàkk liggéeyam. waaw ñàkk sëyam. waaw wasin biir kaso. yar fa doomam ba mu am ñetti at. ñàkk liggéey ñàkk excès tout ça l' état doit vraiment prendre ses responsabilités parce que dans les plus grandes démocraties judiciaires loolu fa am ah. France gi nga xam ne ñun ci la ñuy roy. buñ la jëlee denc la kaso pendant quelque temps acquitté la ne la defloo dara dañ lay dédommagé. dañ lay dédommagé waaw l'état waaw man <laughs> waroon naa koo am. Adja il faut nga kaasal ma loolu man war nañ maa jox dédommagement. waaw mais il faut mais bari na ci mais malheureusement yow xam nga ne 13 jours nga def. mais am na ñoo xam ne 4 ans 5 ans. ña nga fa yooyu noonu. waaw d' accord mais am na ne 4 ans 5 ans. ñu koy génnee leen te def jours ak 5 jours ak ak 1 parce que kaso kaso la. ce qui est important Adja ce qui est important ce qu'il faut retenir. et ça c'est fondamental. Mm-hmm. il faut que encore une fois de plus que l'État du Sénégal précisément. Mm. mais vraiment fasse voter ce projet de loi là le plus rapidement possible. et député yi xam seen rôle assemblée nationale. waaw te instant bi parce que loolu il faut le rappeler. il faut le rappeler. yàq na euh, disloqué na ay famille yàq na avenir nit professionnellement et tout et ce n'est pas normal que nag l'État quand même ne paye pas du tout les conséquences néfastes du dysfonctionnement Maître, du service public. c'est c'est pas normal dañuy dem toujours ci toujours toujours ci toj yeex bi vieux dañuy dem directement ci les conséquences conséquences yi bokk na ci gis nga nit ki bu xasee dugg kaso ba génn nee naa la am na benn bët bu ñu lay xoolee ne kii kii moom criminel la bu ñu xamoon ne dangaa rey nit wala dangaa def ndànk bu dee sàcc nga koo dugg ci këram dootu la sax xool du la sax xajal pour nga toog et pourtant mën nañ laa récupérer nee naa la islam daf doon récupérer ay nit defar leen ba nga xam ni kenn gënu leen a baax même dañuy nettali fii ci kaso yi am na fi benn waay boo xam ni buñ mosoon a ñëw sax di wax ak moom dañ koy ceene ndax ni meloon ci dooleel ndax daan dugg ci kaso ba pare ay nit di def ay délit mais ay nit ñoo ko jege di waxtaan ak moom di ko yedd ba mu génn ci loolu bay dund li nga xam ne moom mooy diineem pour wan rek ne la dafa am conséquence yoo xam ci nit ki même ndax ku nekk li nga am loolu ngay joxe xam nga nit ki nga xam ni moom normal moom ci boppam ku ku mu séqal wala ku mu xool day def ni kooku comme moom la mel kon conséquence bokk na ci di nga perte sa liggéey dinañ la xeeb say famille dootu ñu la considéré yow sa bopp di nga dem ba xat waa nit bu demee ba xat ci réew mi mu nekkoon nag est-ce que dina amati lenn loo xam dina ko fa def. bi ma ñëwee fii la sama liggéey arrêté léegi bi ma génnee toog naa quelque temps soog a delluwaat sama liggéey liggéeyu ma nag li nga xam ne moom laa doon liggéey mais si leneen laay yëngu maa ngi sant yàlla daal Adja lii may dund nii tey ak dund démb bi bokkul am na différence. conséquences yi libaas que conséquences yi c'est c'est très très lourd conséquence nga def nag ak nga bañ a def parce que nee nañ kaso ñi defa nga fa ñi deful dara tamit ña nga fa. dundu nekk ci kaso bi. ba pare mhm. dafa ay at. métti bi nga dund génn sa image mënatoo def sa jëni defoo. Mhm. foo tun foo dem ñu ngi la koy xoolee. mënu même boo demee post bi nga bëgg a bëgg liggéey. boo demee sax duñ la jël. da nga compétent. Mhm. maanaam nekkul maanaam dañ la dénigré ci société maanaam léegi dañ la génne daal yow bokkatoo. te nekkatul loolu parce que dañuy kaso maanaam yar la mën nga juum dem fa ñu jubbanti la mën nga dem jàngoo fa nga jàng fa loo xam ne mën nga ko sax exploiter bokkaat ci société bi mais bu buñ la dénigré yow ñu ngi lay poussé waat nga delluwaat si kaso bi parce que am na ñoo xam ne ñëw nañ pour am deuxième chance mayuñu leen ko mhm. ñu ni kon amatuñu benn chance foog ñu delluwaat suñu crime li ñu doon def donc noonu la noonu la demee euh, Baye Cheikh euh, les conséquences conséquences yi daal Euh, li libaas wax rek moo ci ne foo ko ab foo ko natt rek weesu na ko waaye euh, famille yi am nañ ci rôle mm-hmm. parce que bala la société bee bojji parce que da ngaa génn kaso na la sa famille uuf mm-hmm. ñoŋal la ànd ak yow réhabilité la te pourtant de yàlla xam nga alxuraan c'est la ci musulman mm-hmm. alxuraan c'est la meilleure des références boo xoolee am na yeneent boo xam ne dañ koo tuumaal. dëgg la Souleymane. Mhm. Euh, Youssoufa. Euh, mhm. dugal nañ ko kaso. nu mu mujjee nekk ministre des finances en nekk yonent. dëgg la. sunu président bi bi jóge barki démb. Mhm. Ablaye Wade ñaata yoon la dugg kaso. waaw. te terewu ko après. ñaata at la fi ne ñaata at la fi ne président. 12 ans. Ah? ak ñeneen ak ñeneen ça veut dire donc ni. nit man am na benn ngénte bi ma demoon benn anecdote laa nettali benn anecdote benn ngénte bi ma demoon di waxtaan ak benn nit di waxtaan ak moom ba di di fa euh, tàppante paso waxtaan ba jóg de benn paa paa bi comprendre lul dama Cheikh set yaa mu fit ki nga doon wax noonu ki nga doon waxal noonu kaso la jóge ki nga doon waxal kaso la jóge te xamul lu ko fa yóbbu de noonu laajul moom problème am loolu mhm. ki génnee kaso may wax ak moom pour moom damay dem kaso pour moom kii kenn warul wax ak moom. kenn war ta wax ak moom. kii kenn waru koo jige. ok kii dañ ko dañ ko war a boddi sa à pas bi. foofu la vision toll. or que di nga dugg kaso mokkal fa alxuraan génn ak ilimaan. dinañ ñëw foofu. dinañ fa ñëw ah? foofu dinañ ko dugg bu baax a baax a baax a baax. Ndeye Gueye donc donc conséquences yi. ci der dina daan yàq sa der. Mhm. conséquences yi sa famille dina ca am lourdeur parce que mhm. conséquences yi. Mhm. man am na un jour ba may jàngale sama benn élève am ñëw di jooy ma ne ko lan la mu ne ma sans papa dafa yàgg kaso. sans papa moo nekk kaso. ma ma woo yaayam. Ah. ma ne kii dee leen ko dee dee leen waxtaan ak moom sax kooku kon kooku am na liggéey boo war a def. déjà dina rejaillir ci vie. ci xale bi boobu noonu waaw. Ndeye Gueye yow sa vie avant événement boobu avant ngay dugg kaso sa vie. ak sa vie bi nga génnee quest qui a changé. man moom man moom man moom man moom damay sant yàlla bu baax a baax parce que tax na bi ma bi ma bi ma génnee. kaso mënu ma ni kaso sax ndax du ma ko tuddee kaso man. fi ñuy jubbante sama moromu jigéen yi laa wax. Mhm. di leen fa jàngal ñaw. di leen fa jàngal aar dina ñëw foofu. bi ma génnee foofu dama ne xam naa ci lu bari lu ma xamul woon. dëgg la ñàkkuma ci samay nit nag ndax tax na tey. déggoo ma ne tey samay nit tey bu ñu ma beddeeku woon yàqu naa sama carrière yàqu na kenn dootul def dara ba boole ma ci waaye ki ma njëkk a jàppale gannaaw sama waajur mooy Youssou Ndour mhm. bi ma bi ñëpp nee bu génnee du ko yóbbu fenn dootu ko yóbbootu Bercy dafa ñëw jël groupe les ayda Aïda Dada Penda Kayta yóbbu leen Bercy mhm. ñëpp dañ ne woon Youssou ndur tëj nañ Ndeye Gueye kaso du ko yóbbu Bercy mu ñëw dégg loolu nit ñi di wax société bi li ñuy wax Ndeye Gueye yàqu na mu ñëw jël man la yóbbu woon at ma maag Aïda Dada mu ñëwaat bi ma génne kaso jël groupe ba yóbbu. te loolu rëddoon na la waaw loolu yokk na ma courage delloosi na la delloosi na ma bu baax ñu dem nag léegi ci millier carcéral bi ñuy wax idée bi ci nit ñi am esprit bi ci nit ñi am kaso ba na mu mel promiscuité ba nit ñi nit ñi tëddee fi ñu nekk ni mu saltee ni mu mel loolu lañ bëgg a dem xool yi ak la réinsertion maanaam la fa xew ñu wan leen ko nag tey la xew ci prison des femmes bokk maf bi nekk fii la fa xew bokk moom lañ gisagum ñun ñu leen ko voilà kon ñu ngi ci euh, prison des femmes tey jii foofu lañu ñëw seet si leen euh, prison bi du rekk ay jigéen yu ñu jël tëj leen fii pour punir leen mais aussi c'est pour jàngal leen aussi ay métier pour que nit ñi si biti xam ne ñi fi nekk nekkuñu fi ci tolof tolof nekkuñu fi ci jafe-jafe mais dañ fi nekk aussi di jàng liggéey am na ñoo xam ne bi ñuy dugg fii amuñu woon liggéey te bu ñu fiy génn dañ fiy génn avec un métier donc lii ñu gis nii nappe de table la ñoom ñoo koy defaral seen bopp ñoo koy cuub ñoo koy ñaw donc ñi leen bëgg a jàppale ñu ñëw nappe de table kër yëpp la am ki je suis ki defar dàll bi muy dugg fii xamul nu ñuy defaree dàll kon jàng na fi lii kon kii bu génnee am na métier mais nag pour métier boobu mën a prospérer il faut que yéen ñi nekk ci biti ngeen leen di xalaat di ñëw fii di jënd seen produit yi ndax soo leen ko jëndee xaalis bi dañ leen koy dencal dañ leen koy dencal bu ñu génnee mën a démarrer par quelque chose et ça important mooy li may wax ci réinsertion bu ñu génnee am un fonds boo xam ne day tax ñu démarrer xëy na li leen fi indi woon du leen fi indiwaat wan nañ leen sànq drap de lit bu ànd ak ñaari coussin ñoom tam ñoo koy defar elles font des jus elles ont un salon de coiffure ici ñu ngi jàng coiffure am métier coiffure coiffeuse aussi loolu nañ ci bàyyi xel bu ñu génnee c'est des employés potentiels parce que tamit métier métier la jàng nañ jàng nañ elles ont fait des erreurs dugg nañ fi génne nañ mais am na lu ñu fi jëlee et je crois que la prison sert à ça. man ci biti laay jóge ñëw di coiffer ci détenu yi di leen jàppale. pour ñu am suñu génnee ñu am métier damay ñëw di leen jàngal nag du lundi au vendredi parce que ñoom biñ fii ñëw mënuñu woon dara léegi ñoom pour ñu bañ ñuy xalaat xalaat yu metti yi léegi moo tax directrice kii lieutenant bi wax leen pour ñu ñëw jàng ndax bu ëllëgee suñu génnee seen xel du nekk ci leneen pour ñu am métier. am nañu ay partenaires comme que su mel ni Libaas Kër Aram jàppale. wax dëgg yàlla moo ñu jàppale àndi matériel bi yëpp ba xale yi war a mën a jàng. maa ngi tudd faatu fay Fall nekk animatrice pédagogique ONG Tostan affecté ma fi depuis novembre 2007. ñu ngi fi doon intervenir ci modile bu ñuy tuddee démocratie. ñoo ngi doon intervenir aussi ci euh, droits humains muy sañ-sañu doomu aadama yi. doon nañ leen jàngal tamit cuub. def naa fi formation cuub def nañu euh, transformation fruits et légumes ñi ngi envisager aussi def formation wu savon ak jiw bokk en dehors de ça aussi ONG bi dina topp détenu bi su génnee li nga xam ne mooy métier yi mu jàngoon activité génératrice de revenu yi mu jàng fii bu génnee mu mën a continuer loolu loolu nag Tostan dina ko doolele enveloppe ngir mu mën a def loolu maanaam continuer métier yooyu. yaakaar naa ne lii tey buñ ko wanee ñu bari dinañ jaaxle ñu bari dinañ jaaxle parce que tey prison des femmes man am na ku may waxtaanal bërki démb di ko nettali prison bi déjà am na image yu ñu jot a gis ci début bi gis nañ prison bi que c'est une prison propre que les son sont propres que son toilettes euh, am na infirmerie. donc nit ñi dañ fa nekk vraiment si seen jàmmi bakken waxuma nañ fa nekk nag di def li leen neex ñu ngi fa ak ñoo xam ne ñu ngi leen di redresser di leen jàngal àddina mooy li nga wax parce que fuñ kuñ fa yóbbu dañ la fay teg pour tamit bu fekkee danga nga def nga toog ak sa conscience nga wax ak moom. xanaa yóbbuwuñ la ca ca chambre ba. dugg naa fi yëpp. am na ventilo. Mm-hmm. am na télé. waaw mat laa yu baax. Mm-hmm. damay wax rek te yàlla tax. Mm-hmm. mat laa yu baax kenn ku nekk ak sa matelas. ku nekk ak sa mat laa ñu kii nii maa ko wax dañuy joxe xaalis ñu dem nduggi benn détenu génn ànd ak benn garde dem nduggi ñëw togg ceeb bu baax balaa say parent di ñëw fekk nga lekk ba suur dëgg la maa ko wax man day doy parce que loolu moo fa am moo fa am ñu baax a fa nekk ñu ñàkk kiñaan ñaan soxoruñu iñaanuñu man day gay maa ko wax dëgg la euh, euh, libaas tey lan moo la dugal yow ci lii. comme xa am xalaat rek am yéene ba pare mu ma sensible si si liñ nekk foofu ma xam ni donc li war a nekk si biti bu lépp mënul nekk si biir it mu am lenn loo xam ne rek ma nga fa du nekk du sori ak ñu ñu nekk si biti. ñu bañ a xam ni am nañ différence ak ñu nekk si biti ñu bañ a sentir ni bàyyi nañ leen. moo tax sensibilité boobu laa am. ba pare jàngat. daf tamit won sénégalais ni Sénégal ñun ñoo ko mën a développer. dëgg la ñun ñoo war a dimbalante. c'est vrai que depuis longtemps ONG yi ñoo nekkoon ci yooyu. voilà surtout ONG yi ñoo ñëw. Mhm. te ci seen réew la ñëw seen baax rek leen si mhm. dugal. Mhm. te ñun ñu am fi ay nit ñu. mën seen bopp ñu si mën a jàpp. du secteur bii rek la secteur yëpp. si lekk geeg si lépp ñoo xam ni sénégalais yi. jàppalante. Mhm. preneur appel la c'est-à-dire bu ma wootee dama jël dama dama ko def benn schéma rek laa def mhm. créer ni man mën naa am benn cinquante personne boo xam ni xam naa leen lii sensible na bu ñëwee war nañ si mën jàpp. ku ci nekk war na mën a jàpp ku si ne mën jàpp parce que libaas bu jëlee lépp def ko. mën na ko gaañ dëgg la. voilà Agnès yéen ban idée fan la idée boobu jógee femmes yooyu nga xam ne ay détenus lañ ñii ay détenus kenn jugé gu leen ñi jugé nañ leen ñu ngi tëdd seen peine ñi ils sont en prévention ngeen créer ay structures yu mel nii créer ay liggéey yu mel nii ut ay partenaire yu mel li baas ngir jàngal leen liggéey ba pare tey jii vue bi changé ndax bu njëkk ba liñ daan gis ci garde pénitentiaire mooy kii sol xe geetaru sol tëneem di xaatar xaatar waaw moom lañ daan gis di xaatar xaatar yi boo ko gisee ragal ko nga foog ne détenu yi dunduñu ñu ngi ci loo xam ne mais man dugg naa fa man gis naa rapport bi ngeen am ak détenu yi gis naa comment ragaluñ leen bu ñu leen soxlaa dañuy ñëw wax ak yéen loolu comment ça s'est passé procédure boobu nan la demee. waaw merci Adja. Mhm. nee naa bi émission bi commencé ba léegi maa ngi koy wax di ko bamtu di ko bamtuwaat. Mhm. dama bëgg société bi xam ne sànq wax ngeen ko ci famille yi léegi nga gis yaay bu ñëw wala pap bu ñëw. mais teg ñu loo xamante ne ñun teguñu ko doomam. ndax andiwuñ ko fa loolu itam bëggoon naa société bi xam ko. ñun dañoo nekk ci kaso yi pour assurer la sécurité. Mm-hmm. sécurité détenu ba fa ne. war nañoo fexe ba kenn du dugg ak lamset lu tax loolu ndax bu dugg ak lamset xoos keneen ku mu fa nekkal. dëgg la war nañu fexe bañ kooku it warut a génn te yoon waxu ko ne li lañ la fi andee bàyyi nañ la wala teg nañ la. Mm-hmm. kon xam nga ne war nañu sécuriser kooku. Mm-hmm. bu ñu weesoo sécurité boobu beneen mission bi mooy préparation à la réinsertion sociale ñun ñaari mission yi moom la ñu yemale waxuñu ne bii moo gën a important bale sécurité bi ak préparation à la réinsertion sociale ñoom ñaara yem ci loolu it ma profité ci occasion bi remercier bu baax a baax suñu directeur de l' administration pénitentiaire mhm. muy Cheikh Tidiane Diallo <coughs> ndax texte yi wax nañ ko mais texte boo ko appliqué wul amul njëriñ déedéet décret 2001 362 ñun bu ñu ñëw boobu décret baa ngi fi. 2001 la ñu wax. mais 2009 ba léegi sur les 37 établissements pénitentiaires du Sénégal yëpp am nañu service socio-éducatif kon loolu yombal nañu ñu liggéey bi. service socio-éducatif dina euh, affermir les liens d'abord foofu la commencer réinsertion bi. entre la famille bu ñëwee ñu déglu la. li la fi andi lii la mujjee woo ko njëkkee ko doo ko mujjee. nee la règlement intérieur lu kaso bi lii la kaso bi de lii la bañ lii la bëgg te muy dëgg ndax ni bu ñu nekkee ci ay société foog mu am ay règles yu koy doxal dëgg la kooku service socio-éducatif yee koy def léegi xam nga loolu réinsertion sociale ca la bokk ndax boo ñëwee ñu bàyyi la nii xamoo ci loo ne sa moromu détenu moo lay informé loolu jëmalal kër kanam du doomay informé moromu doomam mhm. waajur wala mu am fu mu jaar ko war a mën a informé doom ji bu ñu ci loolu daal di gërëm suñu partenaires yi ndax bu ñu nee réinsertion sociale du administration pénitentiaire déedéet ñoom la. ñoom la ñoom li baas. ci jàngale alxuraan baa nga ne mu ngi maison d'arrêt pour femme mu ngi ci mineurs yi forbe mu ngi ba heure fixe si jigéen encore donc moom itam mooy yaa Seyda mu nga ne. yaa kon nga xam ne diine bi am na fa place. dëgg la église diocésaine mu ngi fay yónnee ay labbe ay sœur ay mère légionnaire ñoom ñëpp ñuy ñëw di jàngale ci diine bi. wax na ko sànq ñaata ñooy ñëw ne la mosu mosuma mënu mënu woon julli. fii laa jàngee alxuraan ba wàcce alxuraan. gis naa sant yàlla gis naa ko. Mhm. kon volet spirituel boobu d' abord. ñu mhm. door a wax sax. Mhm. ci ci vole euh, social bi formation bi ak travail bi ñu lay jàngal wala li ñu lay jàngal pour nga amal am ak am ko njëriñ. sa bopp d' abord. nga xam sa diine xam sa bopp gëm sa bopp ni ko Fatou waxee démocratie lii la bëgg lii la bañ. lii mooy démocratie mais waroo teggi yoon boo teggee yoon yoon tegu sa kaw. am na sax lu ma découvrir ci biir mhm. émission bi may def parce que man sax loolu sama m'a mhm. ndax am na kër gu ma dugg kooku yaakaar naa ne euh, nekk na régisseur prison Rebeuss lu yàgg pendant des années bi ma duggee ci kër gi li ma étonné mooy tout est en bois et c'est très joli te comme man damaa bëgg lu rafet ma ne ko ah moi j'adore le bois bois dafa rafet nangam ak nangam bi ma expliqué ba pare mu ne ma prisonniers yi ñoo ko defar ma ne ko yan prisonnier mu ne ma ñee nekk 100 ñoo ko defar tout ce qui est escalier yi ngay gis fii ñoo ko defar buffet bii ñoo ko defar table à manger bi moi j'étais étonnée mm. ma ne ko léegi nit ki est-ce que mën na am këram bëgg koo tabax ñëw ci ñooñu parce que ñooñu il faut ñu jàppale leen parce que mm. société bi tamit xaste yomb na torop amoon na fi xaste yàgg yomb na torop joxoñ nit yomb na torop mais dimbale ko moo gën mm-hmm. ñooñu tey jii boo amee sa kër war koo tabax au lieu nga dem jox ko koo xam ne am na ay marché am na ay kiyam nga def sa devis parce que daf ma ko expliquer nga def sa devis dem foofu yóbbu ko fa ñu defaral la ko ay professionnel ñoo fa nekk liggéey bi macha allah nga fay leen xaalis boobu waxuma la sax ne dañ leen koy dencal ba ñuy génn mais xaalis boobu mu ngi faj ay soxla ci biti ndax nettali na ma bi détenu boo xam ne toog na ci biir liggéey am xaalis ñu dencal ko xaalis bi mu am problème famille am am problème ci biti ñu yëkkati ci xaalis boobu régler problème boobu donc yaakaar naa ne aussi aja daguma la mhm. foofu it même si ñu ngi ci jigéen ñi am na lu ma ci bëggoon a seede mhm. ndax fee bu ma marqué la bi ma nekkee Rebeuss tëgg la mairie de Dakar organisé na làmb maa ngi la koy wax sànq li baas nee naa ko def nañu defuñu buñ ko lijjanti mhm. xam nga lan la ñu war a fexe bu génnee du am écart voilà man toog naa Noël ñu teg CD Youssou Ndour bu mujj génn. xaw ma deux jours une journée la une journée la def ci biti mu ñëw ci kaso bi. ma ne waaye fu ngeen jëlee CD bi ñu ne xaw ma yaayu kan moo ko ko jëlaat mais imaginez vous kooku génnoon tey xamul sa la dëkk bi di riir nu muy réinsérer kooku. loo ko formé formé du dugg. c'est pas possible. dem nañu Rebeuss euh, mairie de Dakar organiser benn euh, gala de lutte. Mm-hmm. détenu ba gagné saaku ceeb ba. ne wo nañ ma jéema a wool sama yaay wala sama papa ñu ñëw jël si ceeb bi yóbbul ma ko. waaw xoolal loolu. mairie ba mairie bi lu mu def non seulement permettre ko mu exercer sport bu mu bëgg. Mhm. xam ne fii xarañ na fi bu ma génnee war naa mën a doon lutteur. d'un de deux dundali na njaboot. dundali na njaboot am na ay tailleur malgré damay yeggale damay yeggale mhm. Agnes ah, parce que man dama faa dugg xam la fa ne mhm. am na ay tailleur rëbës gii boo fa demee ay tailleur yu man a ñaw mhm. yoo xam ne tey boo amee say commande dem jox leen ko ñu ñaw ko donc loolu yëpp il faut que population yi xam ko jàppale leen parce que xaste yedd liñ naan yar xaw ma yedd yaroo ko gën xaw ma nuñ koy waxee waaw waaw na kaso yàq la xam dëgg la bàyyi Cheikh ndox ñëw nga dugg kaso fàtte da ngay ma ba. déedéet mënul nekk. te il faut ñu utiliser. da ngay dugg biir kaso yi yóbbaale sa métier. Mhm. kooku de un. Mhm. la léeg nga gis jigéen joo xamante ni daa réere boppam bi mu nekkul ci kaso mhm. ndox ñëw mu dugg biir kaso xam fa boppam. dëgg la. nekkete yoomam nekkete yàlla def na ci loxo mi mën naa ràbbati musu koo xam. oui oui. moom it ma dëgg ko ci. man dama yaakaar ne société bi commencé par man. Mhm. képp ku ne ci la nga yëngu. war ngaa def dara ci kaso bi. moom mii bu ñëwoon benn tàkkusaan rek may ñu benn sketch ñu reytaan. kenn ku ne fàtte sa doom bu feebar. bàyyi seex bàyyi seex non bàyyi seex laa wax bàyyi seex waxal ci loolu. waaw waaw invité ngeen ko benn fet. waxal ci loolu léegi daal may théâtre ca ca kaso bi incha allah. mais mais ma yeggal tuuti rek. waaw foofu ma yeggal tuuti rek. donc pour insertion bi. waaw xam nga insertion important. Uh-huh. gis nga le cas de Taïb Socé. waaw j'ai beaucoup aimé. Mhm. Taïb Socé ndok da koo dal. Mhm. mu dugg kaso. Mhm. tey wax ci diine. naan lii la yàlla wax. mais ñi ko employé woon ci média yi muy wax. su génnoon ñu ne ko dootoo fi wax rey nañ ko. rey nañ ko. yàqu na ils ont participé à sa réinsertion. dëgg la ñu leen bu baax. ñu tàccu leen j'ai foofu aussi bëgg naa nga wax bëgg naa nga wax ci réinsertion parce que on a montré lépp li fa am mais bëgg naa aussi nga xamalaat téléspectateurs yi ñi ñuy seetaan ne kaso quand du faux. parce que c'est important. gis nañ la fa am les gens son à l'aise kenn xatalu leen kenn sonalu leen mais nag la leen fa yóbbu tamit. c'est important kaso du foo loolu tamit il faut que nit ñi xam ne du foo kuñ fa dugal ba tëj la c'est une punition quand même loolu tam war nañ ko préciser. Mm-hmm. waaw euh, punition punition je ne suis pas trop d'accord d'accord ma trop parce que ki ngay punir mooy ki nga xam ne nii leer na la ne euh, def na musiba. non euh, ka def ba ñu affirmer ne def na kay moo tax may wax. non attends parce que euh, expliqué naa léegi que kaso am na ñu fay dem toog fa 4 ans avant ñu di juger. Hmm? dëgg la. am na ñoo xam ne da ngay ñëw ñaari fan ñett ñu juger la tëj la 4 ans. Mhm, mhm. nga def appel sa appel ñëwagul. c'est-à-dire que euh, justice penal dafa évoluer baax a baax baax a baax a baax. Mhm. parce que au départ kaso punition la woon avant kaso sax am na lu amoon ah. soo demoon par exemple ay Rome à l'époque soo amee la ñetti nit bor boo mënul fay dañu lay teg séddale la yow en trois parties ñetti morceaux ci bor. Hmm? waaw loolu moo amoon à l'époque euh, justice pénale développer peine de mort ñu rey ay nit sanction on te sanctionne hmm. danga rey nit donc dañ lay rey da nga sàcc donc dañuy dagg sa loxo mais justice moom moo changé. Hmm. vision loolu moo tax ñuy wax tey waxu insertion wala waxu réinsertion. parce que ce n'est pas parce que rey nga nit que waratuloo mën a insérer dans la société. waaw waratuñu mën a réinsérer dans la société donc on doit te tuer on doit t'éliminer. mais tamit waruñu ko banaliser laa bëgg a wax. non non non pas banaliser c'est-à-dire que il faut nit ñi comprendre que kaso dafa am finalité. Mhm. dafa am ñaari finalité. finalité bu njëkk bi c'est pour les besoins de l'enquête. Mhm. ou la sécurité de la personne qui est poursuivie mun nga mun nañ la jiiñ dara j'ai dit jiiñ ne yow yaa def lii donc il faut ñu téye la téye nëgandu ko pour bañ nga gérer enquête bi dem waxtaan ak ay ñoo xam ay témoins lañ nga yàq seen xel wala nga dem faire disparaître des preuves et cetera liñ la jiiñ aussi garaaw na benn garaaw boo xam ne ni xëy na suñu la bàyyee mun nga ko defaat donc dañ lay téye ba bañ lay atte d'accord mais beneen finalité bi moom mooy dugal nit ki kaso aussi pour mu dellu si xelam aussi xelam dellu si mu xam ne moom mii def na musiba. pour mu wax ak conscience wax ak conscience am te wax ak conscience am boobu du moom ak moom. Mhm. moom ak ñii la ñoom Agnès kil faut féliciter ah. parce que vraiment bravo. j'ai vu euh, j'ai vu qu'on a une administration quand même consciente. Mhm, mhm. aussi par des personnes comme Libas. ñi nga xam ne ni vraiment bénévolat la ñuy def. Euh, mu doon loo xam ne nii vraiment euh, dañ ko war a rafet rafetlu ba pare di encourager leen. encourager leen rafetlu ko ba pare di ñaan beneen bénévolat boobu yokku. ba pare yombalal leen seen liggéey parce que man ci loolu laa bëgg a ñëw parce que xam nga ay loi mun na am les plus belles lois mun nañ la ko tegal. Mhm. mais soo amul volonté pour appliquer loi yooyu. doo ko def doo ko def. nga am volonté bi aussi ba pare amuloo moyen matériel yi pour def ko mais doo ko def. Mhm. ñii avec le peu qu'ils ont fi ñu agsi tey suñu leen joxee plus de moyens je pense que prison dina nekk un véritable centre socio-éducatif et puis euh, euh, li ma ci bëgg a dolli loolu maître mooy ñuy remercier toujours monsieur Diallo bi nga remercier sànq ndax ñun moo ñu permettre jox ñu autorisation ñu dugg ci biir te c'est important ñu gën a tijjeeku aussi pour que nit ñi gën a xam la fa xew ndax kumpa baaxul tant que mu ngi ci kumpa nit ñi mën nañoo imaginer wala yaakaar lu nekk mais moom mi ñu tijjil ba ñu mën a dugg ba mën a xam la fa xew mën ko wane moom tam ñu tàcc ko bu baax a baax a baax. aywa ma continuer ma daaneel ma daaneel tuuti rek. ma dal ma ah. insertion réinsertion. Mhm. ci biir kaso. moom mooy li nga xam ne nii moom la Nations Unies gën a jiital parce que nit aussi du bàyyi ma. bàyyi ma. ku am sa xar wala sa xaj sax du ko yar sa kër di nga ko téye raay ko génnax moom foo doxantu et tout nit nag fii la. Mhm. nit koo jël teg ko kaso doo ko jël tëj ko li ñu naan tëj kaso loolu dafa xew wi loolu dafa xew wi. daguma hmm. dañuy bravo. surtout les femmes en prison. surtout les femmes bu tax ma wax ko. foofu laa bëgg daanaka. waaw. milieu carcéral pour jigéen. Uh-huh. bu ñu tombee si ay nit yu mel nii. xayrun bi macha allah. suñu tombee si état boo xam ne leen jox ay moyens aussi xayrun bi uh-huh. mais surtout qu'on fasse tout pour que les droits de la femme soient respectés en prison et que les droits des enfants également ouais. soient respectés l'accès aux soins de santé pour jigéen ñi parce que hygiène jigéen ak hygiène u góor bokkul am na yoo xam ne ni jigéen daf koy soxla xëy na bu nekkee moom kese si biir këram mun a dem ak hygiène boppam mais bu nekkee ci loxo loxoy buur buur dafa war a def li nga xam ne nii moom la war a def ci doomam accès au soins de santé pour toutes les femmes yi nekk en prison ñu nekk en état de grossesse wala ñu nekk en couche wala ñu nekk en période postnatale boo xam ne nii vraiment soxla nañ. c'est important j'espère qu'on a été entendu. ça c'est c'est important. <laughs> d'abord Libaas. <laughs> yal na la yàlla doon sutura. amiin amiin amiin. te nag ñii ñuy def dañ ko war a vulgariser. yow te euh, Adjaañ tàttu <laughs> xam nga tax wane nga Libaas ni mu ngi def ci prison yi. mais gis nga média yi. Uh-huh. dañoo war a jouer seen rôle davantage. di gën a vulgariser vulgariser. action yi mel nii. li may beneen bi. moo di da ngaa woote léegi fii nii na ñuy jënd napp yi. waaw na ñuy jënd. dara yi waa xam nga maa ngi dem prison ba jënd napp neexul dégg. waaw mais nag di lu mais nag tey jii mais li ma bëgg a ñëw li ma ngi dem prison ba jëndi. dra dra neexul dégg <laughs> mais il faut que ñu aménager des espaces. ok mettre ko en valeur. waaw nit ñi gis ko. pour xam li ñu ñoo ko def. merci beaucoup <laughs> merci. yaakaar naa ne suñu waxee wax ji yëpp nag te tënkuñu ko fenn tamit ça ne va servir à rien du tout kon ñu dem ci les résolutions parce que yaakaar naa ne la prison a changé li Agnès wax bu njëkk ba ay caabi lañ yoroon <laughs> léegi caabi yooyu changé na li met wax tamit dinaa ci dellu si parce que am na foo xamante ni il faut ma ñëw ci maître côté boobu ñu leeral ko bu baax a baax a baax mooy les droits humains yi nga xam ne war nañ ko respecter surtout les femmes en prison mais ñu dem ci résolution yi te ñëw leer na ma ne tey bu situation bu mel nii taxawoon tey du ma ci delluwaat tey te bu ma gisee tamit képp koo xam ne situation am demee na nii mu wax ko ak man tamit du ko si dugal dama ko siy génnee à chaque fois loolu rek moom mooy sama loo xam ne nii maa ngi koy rëcc si sama dund daal. moo tax tey dañoo war a raxas bopp yi képp ku du kaso nekkul ku fa dugg rek da ngaa bon yonent yàlla Yuusufa alayhi salaam presque vie am ci bëri ci kaso la ko passé te pourtant yonent la woon. yonent la woon fa la ko nubbu wax yàlla yónni gi mu ko yónni lu bari ci kaso bi la la ko la feeñe kon kaso nit ku baax dina fa dugg wala yu fa dugg nit ku bon tamit dina fa dugg yi kon kaso nit ku baax dina fa dugg wàlliwu dina fa dugg ku def dina fa dugg waaye ñu xam ne rek ne destin tam dafa am yàlla lu mu rëdd ne fii ngay jaar rek fii ngay jaar ñu dem ci suñu beneen rubrique muy fii la xewee ndax ñun lu ñuy wane lu ñuy wax rek dañ naan fii la xewee lii moom fii la xewee ci kaso ci Sénégal damaa sëyoon 4 ans daal di ma divorcé 4 ans léegi ma gis beneen waaye mu daal di ne daf maa bëgg ma laaj ma ko lu muy liggéey moom daf ma ne moom séri la parce que armoire am man loolu laa wax ba loolu laa sama papa sax léegi bi ma takkee ñu sëy trois mois après man ma dem marché moom mu xëy mu génn ma dem duggi ma ñëw fekk policier ci biir kër gi ñu génne bagage yëpp ñu ne ma ana sa jëkkër ñu woo ko téléphone ñu laaj ko fu mu nekk mu ngi dafa génn ma ne ko amal ah, ko policier ñu ngi dee ci biir kër gi nee na yow la ñuy seet léegi mu ne du ñëw fekk benn xaritam la nekkal xaritam kooku nee na bul ñëw léegi moom ñëwul policier yi jël ma ma bàyyi sama doom ci buntu kër gi. ñu sa jëkkër day jaay yamba rek man xaw ma lu yamba xaw ma woon day jaay yamba léegi ñu ma kon dañ lay yóbbu ba ñu gis sa jëkkër ñu door laa bàyyi ñu indi ma police ñu teg ma foofu ñeenti fan gisuñu sama jëkkër léegi mu ne ma kon damay ñëw ci fii ma xaar ba ñu gis ko ñu door maa bàyyi léegi man ma ñëw fii toog ay weer ma dem enquête ma ñëwaat ma demaat enquête ñaari yoon. ma ma ñëwaat ma toog fii ba ma am ay deux ans ci lañ ko gis buñ ko gisee mais moom ba tey nangul wax dëgg bi nee na man man maa moom affaire bi nangu maa déchargé léegi ñu toog ñu xool xool ba mu yàgg ñu xamante man defuma daal ci lañ ma bàyyi nag ma daal di ñibbi. kon si la xewee mooy suñu rubrique si la xewee maître yow ci yow laa jëm parce que man dama yaakaar dama lay laaj de. parce que euh, euh, xawma euh, yow yaa xam yow yaa spécialiste bi mais est-ce que substitution am na ci ci ci ci ci crime par exemple nit ki ñu accusé la ne ñu ah, ñu ñu kii li mu expliqué ne jëkkëram dafa xëy suba dem marché xamul moom xamul lu jëkkëram di liggéey ils se sont mariés yaa y a trois mois xamul luy liggéey dafa ne sëriñ la loolu la gis mu koy mu koy def yor ay téeréem ak yooyu xëy na dem marché ñëw fekk ñu police taxaw génne ay bagaasam lu xew ñu ne ko ànd sa jëkkër mu ne liggéey na dafay jaay yàmba ana yàmba bi mu ne man xaw ma lu muy liggéey woo nañ jëkkër ji jëkkër ji ñëwul ñu jël ko yóbbu loolu ci loi est-ce que seen normal nit ki ñu jël la yóbbu ci loo xam ne yow amuñu benn preuve ne yow la ba pare biñ la yóbboo def enquête téye la fa parce que gisuñu xam nañ ne diw la mais comme gisuñu ko nañ la téye yow en attendant moom muy ñëw loolu aussi est-ce que c'est une chose normale ndax subsi nit mën na substituer wu à ku def dara ñu indi keneen teg ko à sa place di ko xaar moom mu ñëw. man daal li ma li ma jàng te di ko te te te te euh, di ko pratiquer mooy ki nga xam ne nii moom la yaakaar ne moom moo def suñu ñu tuumal kooku kese la ñu war a jàpp waruñu jàpp doomam waruñu jàpp jabaram. waruñ jop jàpp keneen ko ko jege su fekkente ne moom dafa rëcc loolu euh, jarul jàng droit sax ndax ku deful dara bu bu alkaati yi doo daw bon mais euh, j'estime que ce sont des pratiques yoo xam ne dafa war a dañ quand même war a dañ euh, man défendre naa fi nit Euh, yàgg na tuuti euh, frère am lañ doon poursuivre pour escroquerie ñu ñëw di ko jël si frère bi tëb biir bi daw ñu téye ko moom defeer ko dañ ko sax relaxé mais bi ma ñëwee taxaw tribunal nee naa vraiment dama bëgg ñu expliquer ma kii lan la fi def. dëgg parce que yorul tànku nit ki yorul xelam. kële rëcc na ñu jàpp kii c'est pas normal. c'est pas normal loi digalu ko et je pense que euh, agent yu koy def. waaw ñu bàyyi ko moo gën. parce que détention arbitraire mu ngi ci biir. foofu laa bëgg a dugg parce que yéen man am na ko ma nettali benn histoire ne ma euh, euh, par exemple moom dafa euh, jotee ak benn waay boo xamante nii daf ko digoon takk danaa la takk takk ko mu ne waa ji dinaa la tëjlu xam nga li ma la wax danaa la tëjlu. fexe ba dem uti certificat médical de complaisance mooy certificat médical yi nga xam ne da ngay dem médecin bindal na ne kii def la naan daf maa dóor bindal na ne am nga vingt 21 jours am nga nangam ak nangam ak nangam mu ñëw bi mu indee plainte bi waaj a dem moom it euh, balaa muy dem police moom it xam naa renseigné ñëw la ndax melul ne ajaas yi xam na bu demee lu ko fay fekk xam na ne 21 jours mandat de dépôt dañ la dañ la yóbbu directement moom mu jël boppam dóor ci miir bi ba miir ba ba toj moo fi xew Sénégal ba bopp bi toj mu baas ko def ko affaire bu rëy ñëw moom it ut certificat médical bu ëpp jour yooyu noonu yaakaar naa ne ci enquête aussi parce que man am na benn juge bu ma laaj mu ne ma bu bu bu policier yi police bu ñu la yóbboo bu ñuy enquête am na document boo xam ne am na foo xam ne dañ def portrait suñ la indilee certificat médical yow miy enquête daf la war a leer ne foofu ngay bind portrait bi que kii nii kat li mu wax ne moom moo ko dal loolu moo ko dal ndax ci loolu la ñuy basé wu pour juger ko su demee deuxième question bi mooy ndax juge certificat médical boobu bu ñu ko defee tey jii nit ñëw ne Adja si dóor na ma gaañ na ma fii lëmas boppam wala mu lëmas tànkam wala mu lëmas baatam ñëw taxaw est-ce que juge moom am na droit ci sañ-sañam ne ko dindil sa lii nga lëmas ma xool loolu ñaari question yooyu laa la bëggoon a laaj. dañ na certificat médical. Mhm. donc dafa war a doon kayit goo xam ne nii. moom mooy. firndeel. waxuma sax moom waxuma sax firndeel mais moom mooy dëggal juge bi ci décision bi nga xam ne moom la war a jël. certificat médical dafa war a doon loo xam ne nii c'est vrai médecin moo ko war a def mais policiers yi. en commençant d'abord par eux. Uh-huh. loi bi may na leen ñu def euh, réquisition à personne qualifiée. oui soo ñëwee andi ma certificat médical ne diw moom moo toj sama bopp wala moo ma violé wala moom ma def lii mu ne d'accord je prends le certificat mu ngi may indiqué mais xaaral dem dem désigner beneen expert beneen médecin. kon loolu kii enquête moom am na droit def ko. am na def ko. Mhm. loolu sax loolu sax. loolu lañ loolu loolu santuñu ko de mais dama ne loolu moo gën a professionnel pour man. ok comme que de plus en plus Sénégal ñi ngi dégg ñu naan ay certificat de certificat médical de complaisance dafa am. bu nit indi certificat de de certificat médical am. Uh-huh. yow jëlal benn médecin boo xam ne nii bindal ko kayit ne ko yoon moo lay wax nga constaté ndegam kii blessure yi ndegam am na ndegam incapacité bi 21 jours la wala 22 jours bu boobaa dañ xam bu ci faux. ak bu ci dëgg. ak bu ci dëgg. parce que kaso yi ñu bari ñu ngi fa tamit loolu moo leen fa yóbbu. ma ni man amoon naa benn waaj yoo xam ne nii même man sax daf ma nax. Mhm. parce que dama ko daan défendre. waa ji boo ko nee ñoxoon njaay rek mu dem plâtrer tànk bi yóbbu la tribunal ñu nga fay. <laughs> y a un xam naa mi mooy dëgg. waaw il gère un commissariat pas loin d'ici. Uh-huh. keroog maa ko jot téléphone mu di ma ko fàttali ne mooy yaa ngi yow xamuloo ma waaye amoon na benn waajur doon defan yoo xam ne ay temps. Uh-huh. suñ ne ñoxor njaay rek bu dee dem plâtré loxo bi wala mu plâtré tànk bi et il a fait condamner beaucoup de personnes devant le tribunal régional bari nañ ci bari de l' escroquerie ça. Uh-huh. c' est de l' escroquerie. am na effectivement ay médecins yu fi jotoon indi ay certificats médicaux yoo xam ne ay faux la. mais ils ont été poursuivis. ñooñu lan moo leen ci mën a fekk. ñiy def loolu mais tëj kaso faux usage de faux la. ok loolu dañ ko wax aussi escroquerie à jugement la. ok tu escroques le juge. Uh parce que juge bi il n'est pas médecin. Uh-huh. donc su médecin bindee dara day jàpp ne loolu mooy dëgg. bu fekkente dafa ne ITT 21 jours la uh-huh. ah bon xaaral ma tëj la 2 mois de prison ferme. alors que yow dara jotul. dara jotul mais c'est très grave. c'est très grave. c'est extrêmement grave. <laughs> donc c'était un exemple rek parmi d'autres. waaw. Euh, samay rakk a ngi ne la toog. dëgg la am naa mag bu góor bu ma bokkal ndey baay mooy suñu taaw kër. waaw. dafa am benn ndaw suñu bokkaloon koñ. ñoo bokkoon benn koñ suñu kër yee xaw a jàkkaarloo nii tuuti rek. Euh, xale bi 6 ans la am xaw ma 7 ans. prof bi ko doon jàngal moo ko violé. prof bi ko doon jàng. waaw ki ko doon jàng. moo ko violé. mais yaay ji dafa am ak sama mag bi problème ni xale bi buñ la laajee ku la ku la violé neel diw. ñu dem indil sama mag bi fekk ma dem joué ji sama yaay woo ma rek ni ma police de ñëw na fi ba jël franc yóbbu. Mhm. certificat médical ma laajte lu xew ñu wax mais xale ba mu eggee ba police ba tribunal sama mag bi téye nañ ko fa un mois. xale bi ci baar bi la taxaw ni sama yaay moo wax naa wax jiw la. waaw dama wax suñu waa koñ bu ñu déggee li may wax dinañ xam li may wax dégg dëgg la. fii la xewee fii rek la xewee Sénégal dañu bëgg rek ñu xam ne dañu bëgg nit ñi xam ne rek ne. ñiy jugé parce que yow war nga yëg cas boobu parce que ñiy jugé aussi ñiy jugé mooy li ñuy wax rek bu ñu jugé tey dinañ jugé ëllëg. kon li ñuy jugé nañ ko xool bu baax a baax ndax nit ñi bëri nañ ci kaso bi ñoo xam ne defuñu waxuñu dañ leen a sosal am ay nit. Sénégal ay nit lañ lay jaay am ay nit am naa relation te ta kaso dafa doy waar dugal nit kaso parce que am nga ay relation ah sa conscience bu la ko mayee boog. man de man de Adja euh, waaw le cas de Ndeye mhm. dama ni ko. Mhm. est-ce que xam nga ni sa demu fee. Mhm. yàlla moo la jox mission pour nga xam la fa xew. dëgg la parce que. da ngaa yor tur wu nu yorut. dem nga fu ñooñu demut am nga loo war a xam. mu muy natt boo xamante ni. Mhm. natt la boo xamante ni moo tax bi nga amee bi nga fa génnee. Mhm. sa réinsertion yi jafewul. jafewul dëgg la tàccu leen loolu. sa réinsertion jafewul. ñu dem nag suñu rubrique rek bi nga xam ne moom la ñuy mujjee muy njegemaar bi njegemaar bi nee nañu chaque numéro dañuy tànn une dame qui sa distingue ci suñu thème qui sa distingue dans ce qu'elle fait tey jii nag. yaakaar naa ne njegemaar bi ñu tàmm ci sama xalaat boog njegemaar bu ko mat la njegemaar bu ko mën la ndax ci milieu carcéral lañ duggoon kon ci milieu carcéral lañ choisir suñu njegemaar on va à la découverte de notre njegemaar lu jege fanweeri at muy liggéey ci kaso yi soxna Oumou di Diop Ndiaye surveillante de prison principale de classe exceptionnelle la soxna si juddu ci atum 1958 ci ndakaaru ku yàgg bëgg li muy def la yaroo ci kër commissaire Mamadou Ngiraan Oumou Khaydi jàngee na Pikine 10 Saint-Laurent Saint-Michel laata muy def concours des élèves gardiens de prison ci atum 1983 jaar maison d'arrêt pour femmes bu Rufisque maison d'arrêt et de correction bu Tivaouane mag bu Anne ak yeneen bërëb soxna si jigéen ñi caabi féete ginnaaw xam nañ ko bu baax boo tuddee yi la soxna sax xolom fees mu mel ni kuy jooy umu xayri dafa jàpp ne ñoom ñëpp yaay lañu mag lañu rakk lañu te li leen yóbbu ndogal la bu mën a dal kenn ku ne umu xayri di jàppale soxna yi di leen jàngal ñaw di leen jàngal cuub tàggat leen ci xëy ba bés bu nu génnee ñu mën a am ci lu ñu jàppoo moom sax lekk-lekk daf leen di toggal ay ceeb yu neex Oumou Khairy dafa jàpp ni euh, kaso bi famem la dafa bokk ci moom te ku ko laal laal nga ko soxna si am njaboot mën a reetaan lool foo ko fekk mbëbëtam mooy soxna yi caabi féete ginnaaw seeni mbokk di ñëw di leen nemmeeku ndax dugg prison taxul bon te kenn ku ne ci ñoom ci famille nga jógee. di daral jàmm toogal bu baax. détenu ñu ne ñu mooy suñu yaay ñi nga xam ne ñoom lay liggéeyandool mooy collègue am ne mooy suñu yaay kon yaakaar naa ne tey fi ñu jëlee suñu njege maax tey foofu lañ ko war a jëlee tata ñu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum maa ngi leen ñu ngi lay sargal di la féliciter ci liggéey bu rafet bi parce que jot nañu xam sa parcours jot dégg sa parcours jot aussi gis ni nga mel ak sensibilité bi nga am ci détenu yi dem nañ ba ay détenu ne ma bu tabaski jotee yaay jënd yére jënd ay tissu yóbbu ñawal leen bu journée de la femme jotee yaay jëndi ay tissu dem ñawal leen nuróole ak ñoom bu feddee des mères jotee yaa koy féete ak ñoom kon nag ñu tàccuwaat ko bu baax a baax Euh, buñ ne nag nit ki baax na ñu ne ndax ay mbokkam ñoo ko wax wala ay xaritam ñoo ko wax kon nag balaa ñu dugg wax ak ci wax waxtaan ak moom on est allé un peu à sa découverte jéem a xam kan mooy madame Oumou Khayri Diop Ndiaye on va à la découverte de notre njëgënaar. c'est Adama Koundoul chef service socio-éducatif madam Ndiaye li ma mën a wax ci moom bu ma ko dee wax fii ba suba. ci lu baax du jeex ndax madam Ndiaye mun naa wax ni collègue la collègue la mais c'est une c'est une maman maman la ci ñun personnel bi ndax elle fait partie de la première promotion yaay la ci ñun ñi nga xam ne dañ ko fi fekk muy personnel bi yaay la tim ci détenu yi man ci fi ma féetee wàll yu ma féetee muy service socio-éducatif defe naa ne détenu yi lépp lu leen nit defal suba ba ngoon jot man nga ko defal te madame Ndiaye mel na ci noo xamante ni détenu yi nim leen ni toppatoo damay xalaat est-ce que noonu sax dina am temps bi pour toppatoo ko njabootam ndax madame Ndiaye sensible na ci détenu yi madame Ndiaye bëgg na détenu yi détenu yi lu ñu soxla suba ba ngoon jot buñ ma dégloo bu bu ñu déggee li may wax détenu yi ñoom xam nañ li may wax dëgg la ndax lépp lu ñu soxla fii suba ba ngoon jot ci biir xale yi soxla ko fii suba ba ngoon jot madame Ndiaye mooy dem jëndi ko te loolu defe naa ne man mi nekk socio éducative war a jàppale détenu yi ci lépp lu ñu soxla man la waroon wante xoolul ne moom mag la duma def lii wala duma def lii mais mbaaxam fi mu toll ak madame Ndiaye ni mu mel xolam ni mu oyofee moo tax loolu yëpp muy jóg di ko def. dama maa ngi tudd Diadji Ndiaye bon je suis commandant de l'administration pénitentiaire mu euh, nu ma koy définir mooy soxna su baax la soxlu su yaru la soxna bu ëmb la parce que tey jii peut-être xale yi wàcc nañu dellu nañu mais bu ngeen bu fekkoon teloo ngeen ñëw daa ngi gis nga xarit xaritam doomam yi seen xarit yëpp pratiquement bu ñu wàccee fii di def si añ si ba pare automatiquement ñu dellu si xam nga ko ku yaatuwul. doo ko mën te defe naa bi ngeen demee fa muy liggéeyee bu soit nit ñi porté woo ci moom rek xam na am na yu yàlla def ci moom te aussi très soucieux des problème des autres waaw parce que tey jii euh, patron nam du ma bàyyi ma fen am naa turandoo ci prison bi boo xam ne ci moom la jóge pratiquement xam um moom man déjà sama petite sœur la sama rakk la mel na ñoo bokk nde ak baay xam nga kooku dafa yomb ma ni man vraiment mu gisuma ci mu def wax xam nga dañuy wax man leen xanaa ree bu bëri te kooku c'est pas un défaut bu bëri kooku mooy tonton Diadji Ndiaye yàgg na yaakaar naa ne nit ñi xam nañ ko bu baax mu diriger lu yàgg yàgg yàgg prison bi nga xam ne mooy rëbës mooy mooy borom këram euh, tata li may njëkk laaj mooy lan moo la dugal ci liggéey bii parce que bu njëkk ba xamoon nañ ne kaso yi ñëpp góor yi ñoo ko daan garder ñu jékki-jékki gis beneen métier bu génn beneen métier bu bees bu génn yow nga bokk ci promotion yu jëkk yooyu muy les gardiennes de prison femmes lan moo la dugal ci liggéey boobu noonu liggéey bi comme ni comme ni comme ni mu ko waxee woon rek man dama nekkoon ak sama nijaay commissaire Mamadou Ngiraan mu bëggoon ma torop vraiment ma nekkoon ci moom di ma nekkoon ci moom moo ma yar presque léegi daf ma daan bu musaa dem bu musaa dem stage ndeysaan daf ma daan bind ay lettre naan ma da ngay jàng soo jàngee nga ñëw nga def police vraiment encore ma nekkoon ak samay grand frère Dame Ndiaye gardien de prison la faw Fawzi Diaw encadreur la à l'école nationale de police am naa beneen frère frère Alex Ndiaye. kon daal man ci famille boobu laa judd. ci laa laa dund. ci la vocation bi aussi génnee. Mm-hmm. Mm-hmm. ta euh, gis nañ ni nga mel ci métier bi gis nañ niñ la tànnee ñoom seen bopp ñoo la tànnal seen bopp man li ma bëggoon xam mooy euh, nan nan nga def ba relation boobu noonu am muy sa diggante ak détenu yi muy sa diggante ak ñi nga xam ne ñoom ngay liggéeyal. jërëjëf loolu boo gisee mu am dama leen di jege rek. toujours maa ngi seen biir ndax toujours ñu ngi quartier kon nag euh, du lundi au vendredi maanaam ñoom ñooy yendu ñooy liggéey kon nag dañuy dem ba nga xam ne dañu mel ne nous constituons nous constituons une am na sax beneen tur boo ma jox ne ma waratuñ ko tuddee kaso naka lañ ko war a tuddee nga ne. waaw amoon suñu benn euh, pensionnaire. moom ndeysaan dafa nekkoon mais da daan xëy bu xëy mu ne maa umu. mu ne ah mu ne waratuñu wax maf. ma ne ko lan la ñu war a wax kon. Uh-huh. mu ne ma dañ naan maison de famille pour femmes. ndeysaan tàcc leen loolu. Uh-huh. maison de famille pour uh-huh. eh, xale yu jigéen ñi lay seetaan bëgg a embrasser métier boobu nga def tey jii lan nga leen di wax. ak aussi ñi nga xam ne ñu ngi lay seetaan nekk ci bitti amoon une autre vision de la prison amoon une autre vision de gardes pénitentiaires ñooñu aussi ban message nga leen di lancer ak ñi nga xam ne ñu ngi ci biir kaso bi nekk torof torof ñu ñooñu aussi lan nga leen di wax waxtaan. ñu nekk ci kaso bi te génnaguñu dañ leen di ñaax dañ dama leen di ñaax ñu góor góorlu réccu bu tey réccu ba nga xam ne bis bu ñu retrouver seen famille yi ñu mën a bokkaat ci société bi te li ñu defoon buñ ko defati ci àddina loolu laa leen di ñaax. ñi lay seetaan may seetaan maa ngi leen di xamal ne kaso bon taxu ba bon taxut a dugg kaso yenn saa yi nattu lay doon yenn saa yi nit da ngay def loo xam da ngay def lu tuuti loo xam ne boobu doo ci séentu dara. Mm-hmm. kaso ne salaamaaleykum. dëgg la ñuy gis ak suñu tëni rek ñu xalaat ne dañoo dur ñu nga ñu ngeeg rigueur mais loolu du dara métier bi ñun ñoo ko choisir. mais du dara ndax ñu ndax boo boo xoolee ñun ñi ci kaso bi ñun ñun rek ñun ñoo fi nekk fi mu ne mais la li comme ni ñu koy waxee la récupération d'un homme n'a pas de prix. n'a bravo en tout cas ñu ngi lay gën a ñaax di la gën sant di la gën gërëm di la def exemple parce que comme je dis toujours mhm. on des exemples nañ leen seet ci milieu bu ñu dem rek am nañ fa exemple donc ci milieu bi ñu dugg tey yow lañ tànn comme suñu exemple ñu lay ñaanal gudd fan ak wér yàlla gàttanal la ba li nga ci bëgg a def nga yeggale ko ci euh, balaa ñuy tëj nag suñu émission mënuma koo bañ a indi ndax euh, dafa am ñoo xam ne suñu nit lañ nekk suñuy partenaire nekk suñuy xarit Baye Cheikh mi bokk ci muy humoriste Sénégal yëpp parce man humoriste yëpp laay recevoir ndax nee naa thème yi may def yenn saa yi day métti ba nga xam ne bu ci humoriste bokkul day day xaw a doy waar kon nag ñooñu tamit bu ñu génnee tey génn Sénégal représenté Sénégal muy bàyyi Cheikh muy père bu xar bi fi jógee barki démb muy am di mignon muy Serigne ngañ bu ñu génnee Sénégal dem bitim réew am fandam ba dina ci baax nag ñu indi ko wane ko sargal leen félicité lii ñoom ñoo ko indi te kenn ku ci nekk jox nañ la ko ñu joxe leen ko itali muy muy festival bu fa amoon festival du rire bu fa amoon ñu jox leen ko muy ndam lii nga xam ne suñu humoristes yi ñoo ñu ko indi te man ñuy samay partenaire ci émission bi boole ko ak médaille donc ñoom ñett ñëpp am nañ ko ñu tàcc leen bu baax a baax a baax a baax ndax ci émission bi lañ bokk ay